acca première demi-finale poids léger baa ngi noonu diggante Lang Bara Kado waaw ak ki nga xam ne mooy Ndour Wally bu Fissel deuxième demi-finale poids léger seen xaaj la xaw ak lakal Yo, Asan, baka kega e ngan nan bilden. Yo, yi se sa. Yo, yi se sa ak kene bay, kega ken basen degun. Wa. Yi kosh nan wajan. alhamdulilahi we ngir waa Nduur ngir waa na tànk ba Langbar jël na tànk Ndour Waly waaw waaw hey eh, na ca Langbar ak Ado moo nga waat dellu nañ ci action ba mboot takk na ko ndeysaan Langbar ak Ado en rouge Ndour Waly en vert moo koy tegal seeg waaw waaw eh. Langbar ak Ado daan na ko ndeysaan waaw waaw Bara Ngado daan na ko waaw waaw Bara Ngado daan na ko Nagiging